yaatal na ab dëkkuwaayam yaatal na këram te it yaatal na ak déndam moom mi di international Croatie bi di euh, militaire bu Real Madrid moom it di Luka Modrić moom it ñu gis ni taxawaayam dina gën a am solo ci saison bi ndax mag ñi bu fekkente ne Toni Kroos dem na est ce que dana am mag ñu magal équipe bi loolee yaakaar naa ne erreur ci ñu teel ko bàyyi mu dem te amul beneen mag boo xam ni mën na fee taxaw ndax bu ma juumul Carvajal moom it euh, ay mbiram yaakaar naa ni dara leeru ci day dem Euh, loolee tamit nekk lu ama am solo Carvajal gars yi nañu fexe mu toog bañ a dem fenn bañ a buuse centimètre Kylian Mbappé tamit moom it mi ngi ci xibaar yi taxawaayam ak la mu am yéene ak kaddu yi nga xam ne yebbi na ko danañ ci dikk ci lu yaatu yaatu maa ngi leen di ziar sàkku ci yéen abonnement yi ndax lu ñu dugal tax ñu mën koo am aimé suñu vidéo commentaire maximum deuxième loolee yaakaar naa dana baax képp koo xam ne yaa ngi seetaan suñu vidéo ba rek laalal j'aime bi ndànk bu ko defee lépp mën a doon tawféex ci li nga xam ni mooy information yi wér te yi nga xam ni yéen a ko fi am. ba Mbappé euh, bokk na ci footballkat yi nga xam ni euh, Real Madrid moo ci ëpp lu muy fayeeku moom sax mooy footballkat bi ëpp lu muy fayeeku quinze millions d'euros buñ sukkandikoo ci Marca cent dix millions euh, moo nekk d'euros lii di prime de signature bi tax mu bàyyi lépp ñëw foofee soixante dix pour cent maanaam téeméer yoo jëm ci wàllu publicité bu jëm ci moom maanaam droit d'image soixante dix pour cent yi moo ko falang daal di koy yóbbu ci moom loolee tamit nekk loo xam ne lu aman so solo ñu yokkal ko ci beneen bonus boo xam ne bu fekkee jël na ballon d'or foofee ci Real Madrid maanaam gars yi dañuy yokk dooleem yokkal ko ay bonus ba maanaam moom moomee di gone gi day gundaan daal nekk ay xéewal ci li nga xam ne mooy wàllu football mi ngi koy commencé am ndax fi mu toll nii cent dix millions yooyu mu coppate teg ko ci boppam loolee mënoon naa football sax yaakaar naa ne ba jeexal contrat mag Real Madrid loolee du yomb benn yoon waaye nag ci zéro seconde maanaam si euh, signé contrat rek daanaka gone gi fi mu toll nii ap emposé na ci loole mu bari te mérito ko bu baax a baax ndax buñ ko doon jënd ñoom Real Madrid fële ca Paris Saint-Germain mën na see def ay deux cent millions d'euros nangam ak nangam ak yeneen te yooyu yëpp mujjul leen ci fekk.